waaw salaamaaleykum wa rahmatullah waaw bu ñu nuyo waaw bu ñu nuyo suñu mbokk téléspectateur Nite TV yépp national international euh, Cheikh ndoy fi moy Kër Bakka fi moy quartier Kër Bakka euh, bok ci Kër Massar sid mais mu nekk quartier bo xamné dafa melni dal mom bokul ci Massar sid parce que quartier la bu nga xamanteni man man na ni fi ñun musuñu gis maire. fii amul kenn ku ma mën a wàcceel image nga ñëw fekk maire mu ñëw fii di xool problème yi nga xamante ne moo am si si Kër bakka mu teg fi tànkam fii nag yàgg na fi trop yàgg na fi ba lii moom kenn xamul bassin la kenn xamul dex la yàgg na fi trop bu nawetee fi mu ne nii benn taw ñaar bu ko defee fii day fees dell Kër Baka gi nga gis ndox mi di fees dell comme image yi may yi may wàcce noonu ndox mi yëpp fii lay fii mooy ñëw ba fees mu dugg si biir dëkk bi booba léegi nag ñu ngi sàkku Kër Bakka amul benn canalisation bu dugg si Kër Bakka amul gusaguñu pavas gusaguñu dara ñu jàppoon ni lii xëy na dinañ ñëw defal ñu ko bassin wala boog ñu jël benn tibo comme digganteem ak euh, euh, li nga xamante ne mooy euh, bassin bi bi jaar fii ramasser tool ba bassin bi nekk si yu su Diop bi diggante fii ak foofu matut 500 mètres. ñu jàpp ne dinañu defal benn canal bu mag boo xam ne dina ñëw ramasser li nekk fii dugg kër kër bakka yóbbu ko fële pour mu mën a dem si bassin central bi nga xamante ne moom lañ liggéey mu nekk 3 mètres de largeur 1 mètre 50 de hauteur su boobaa kër bakka dina génn si yu bëri mais mënuñu am loolu. mësuñu gis maire gisuñu maire amul kenn ku ñu siy jàppale même inondation bu amee waa Kër Bakka ñooy cotiser actuellement nii commencé nañu cotiser. góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi xale yi dugg nañ si quartier bi ñi ngi set setal lu ne ñi ngi koy def ñi ngi rafetal quartier bi ñi ngi jéem mais am na loo xam ne doole nit attanu ko état moo ko mën a def. kon ñi ngi sàkku bu baax a baax euh, waa ADM ñu bàyyiwaat xel Kër Baka bu baax gën a góor góorlu parce que man gëm naa ne ak procès bi nga xamante ne moom moo am si Kër Massar muy euh, ino euh, kii procès projet ba promoville bi nga xam ne inondation day jeex takk si Kër Massar 114 milliards yi ñu wax gëm naa day yàgg tey wala suba incha allah rabi dinañ ñëw. xëy na yàgg la ñuy wax waaye nag su denkee dañuy xaar ADM di xaar liggéey boobu mu ñëw te ñëwagul en tant que maire nga xam ne moom moo jiite dëkk bi war na saa su nekk muy jaar Kër Bakka di xool li fi xew di xam situation bi Kër Bakka di dund. lii nii ngay gis nii noor ak nawet lii la ñuy dund barax bi mi ngi fi yaa ngi dégg liy jooy si biir nga yit nga yaa ngi koy dégg xamuñu ay yeew la xamuñu lan la. xoolal xale yu ndaw yi fowe fii xoolal même pas sept xoolal xale yu ndaw yi fii la ñuy fowe ñoom ñëpp kon lii nii boo jiitee ab dëkk nga nekk fi dafay baax nga defa jaar di leen xool bëgg nañu nag inondation ndox maa ngi ñëw ndox maa ngi ñëw tey la 14 août jàpp naa ne fi mu ne nii moom ndox buñ ko wut tey si guddi séntu ko suba parce que loolu lan baaxoo di gis 15 août toujours da daan taw mais fii bu tawee bu subaa bu ñëwee kenn du génn loolu nag bëgg nañ ki nga xamante ne mooy monsieur le maire mu jéem a préparé tey li ñuy wax préparer préparer inondation moom jéemu fi dara gisuñu moto pompe ba fi wàcce gisuñu mu jaar fi chaque année quartier bi laa la wax ñooy cotiser bon volonté yi fi nekk kenn ku ne lamb sa poos la nga am nga def si loolu nag xanaa Kër Baka moom bokkul si Kër Massar Sud dafay baax à chaque fois ñoom ñuy fàttaliku askan bi leen fal dafay baax. ñu xam ne askan bi dañ leen a fal pour jàngoroy askan bi pour li population bi bëgg ñu taxaw si mais faluñu leen pour ñuy shopping ñu leen pour dem Amérique di wane wu maa ngi nii ci Bill Clinton man suma ngañ si ay Bill Clinton ak yu ma xamul sunu sunu commune bi nu ko jox ñun loolu lañ bëgg mu taxaw si na taxaw si jàngoroy askan bi mais nag waa Kër Massar Sud ñoom ñoo tànn ku cuune amul xam-xam jox ko lu leen dal nañ ko muñ. dana métti nag ñun mënuñu noppi parce que ay opposants lan ay politiciens lan mënuñu noppi faaw ñu wax mais li dal Kër Massar Sud dafay métti mais ñoo ko teg suñu bopp ñoo jël am jël ko amul xam-xam teg ko fii maire mosu fi teg tànkam mosu ñoo dimbali si dara yenn nii nag ku ko ku ko xul tam joxañ ko kon nag na góor-góorlu yaakaar naa ne buñ la falee nga def trois mandats xaw ma ñetti at trois ans. nga def ko mu desee la deux ans te dafa goo fi lu gittax bu nu mën a samp wane defoo fi lu ñu mën a wane kooku mooy échoué total échoué total te li ma lay wax nii duggal Kër ma Massar Sud defar micro trottoir doo gis fu lay duutal baaraam ne la monsieur le maire moo def lii ambulant yi daal la yab ñoom daal minute mu dem marché bu demee Amérique jógee Amérique ñëw wane wu foto wu yooxu moom pour nga xam ne mi ngi si dëkk bi wala nekku fi il faut si si ambulant yi di nga koy dëkk bi. ay ay réalisation yoo xamante ni yéen a mën a duut baaraam la gusuñu mu di ko def di sa wanewu